dëkk bi di poroxaan nekk ci wàccaayu li nga xam ne kon moom mooy màggalam mi nga xam ne jàpp nañ ko alxamis fukki fan ak benn ci weeruma février tàmbali li nga xam ne moom mooy mbale dëkk ba askan wi génn woon lool takku ngir amal li nga xam ne kon moom mooy ceetu dëkk googu di poroxaan loolu ngir ñëw rek wuyu si woote gi nga xam ne sëriñ Muntaxa Mbàkke ibnu sëriñ Basiiru Mbàkke mi nga xam ne ñoom lañ dénk lii di organisation xew-xew googu woote woon nañ ko askan wi ngir ñu génn seetal li nga xam ne moom mooy dëkk bi di poroxaan talibé yi ñew eh, ci magal gi ay junni junni talibé lañ won gennon yore li nga xamné kon mom moy ay bale rato brouette pel bép jumtu kay bo xamné rek mun an li di mbalit ñu dem ci li nga xamné kon mom moy mbéd yi nekk ci biir dëkk ba di poroxaan ngir eh, setal ko eh, ci fàttaliku rek li nga xamné mom moy magalu màggalu ñong ko jagleel soxna mam jaara buso nekk wajur ju jigen ci ki nga xamné mom mo sos yoonu murit di cheikh ahmadou bamba xaadimu rasoul màggalu poroxaan ren gi nag jàpp nañ ko alxamis fukki fan ak benn ci weerum février atum 2016